maa ngi lay ziar baax ma sant yàlla juri si yonent sant sama ñaari waajur sant borom Mirina di sant bu baax sant waa Ndangaan ma eseg naa bi ma jógee. yi naan yàlla. yoo jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. di sant waa bu baax a baax. Hmm. sa mu ngi mu ngi koy xool de. non xooluma ko daal ma képp ki tax ngam lu la. barki Seydina Muhammad mu benn mbër bi tax nga ma lay bàyyi xel ma wa Fatou ñoo ma ñor ko ku ne mbëru Fatou mu sama gox rek ah du sandi wa du sandi wa di ñaanal jess ndama ah. wa waaw Torodo Taatu dakaru da ñaanal ndam Ziza da la ñaanal ndama ah. tax ah. nu Borom ba Serigne Touba waaw ma sa day tëju lo kenn dama ko jëlee nangal ma xam nga ko xam naa ko bu baax kay ngeen ma sa bëri kon du ma xamul ma sa bare ngaa bëri musu moom mbapat musuma bëri mbapat xam ko bu baax man nga ko lamb ji laa gën a fonk quoi ko am combat dama jël combat bi gars yi ne Bende bu jël baa ko si yow ma naan sama staff ñu doo ko doo ko delloo na teg sa doo xool leneen fi nga mën a doon champion la jaadu doon champion. lamb gëm-gëm la rek te ma dama am gëm-gëm damay doon champion sama place du fii ak Serigne Touba te le 15 yàggatul. wéy kon yow bu dee xam na nga xam nga ne baaxul rek kon baax na di sant di sant booy ma àndal. biram non di nga sant booy waxal ci kii sa adversaire bi mbaa jàppoo ko naxa naxa non non mu ko si ku takk ngemb doon naxa naxa am nga foo mane boo takk ngemb bis boobu mu ko man ma ëpp doole lu neex moo fay am insha allah diggi géew ba man bu ko na wax mais mana Ya man lu neex moo fay am maam man maa ëpp doole wax du bëree tontante wax daal wax

waxuma la waxuma de rëg waxuma ko de rëg dafa diis si ñoom mais man kese bu ma takkee ngeen seen écrit maa fa man faas bindaa wallaay maa fa man écrit ba yëpp moo takkee ngeen sama ngeen mu parce que alxuraan écrit faas mënul daan kenn moom daan kenn bindaa wallaay duma xeex ak yow xeex sa morom nga koy defar dama lay duma. déggoo ma. man duma. si géew doo ma duma si làmb may mbay kumba. da jàpp may ay kaar yu bëri yu war a jóge ndangan ma xam nga ñu ngi woo monsieur le ministre Mbaye kii Mor mu ñëw jàpp si dañuy am combat bëgg mu jàpp si mais duñ ko gis mais mbay kumba nee na dina si jàpp ñu ngi koy woo mu jàpp si bu baax a baax mut ba seen sama benn booy bu ndaw moo si jàpp instant yi moo joxagul si xaalis dama dem sax ba rus koo woo barke alxuraanu karim mais maa ngi woo waa ISECNA ISECNA gi ma dëkk maa ngi leen di woo waa yëmbër gépp waa 205 di woo waa Caaroy Géej ñëpp maa ngi leen di woo di ñaanal amee dem combat bi mu jëm yaa naka si yàlla may ndam di ñaanal Reug Reug yaa naka yàlla may ndam si combat MMA bi mu jëm ak combat mook bomb bi ok di ñaana di di nuyu sama boy Biram Siteu xam nga Issa Pouye ak Bébé Tara ñoom ñu ma àndat boo sama booy yëpp booy ndanga ma yëpp nan préparé kaar yi am na incha allah kii du Thiès kii du Thiès jërëjëf usine bu ndàngam mi nga koy woo waaw di woo waa Fass waa Colobane waa di woo ñëpp surtout waa Kër Massar maa leen woo bu baax a baax ndax ñu sonn su lamb ji ñu def xaalis bu bëri surtout mafia 59 yëpp Kër Massar maa leen woo di woo ñëpp daal di woo Thierno Ndiaye nga jàpp si lamb ji monsieur le maire waaw di sant sama booy nag ñoom booba ñoom Alassane booy ay tout tàng ne ñu sonn si man bak alxuraan karim booy lépp luy jàkkaar tabaski si man ñu ko def waaw di sant ñëpp ñëpp waaw surtout Thierno Ndiaye maa koy woo loxo man sama mbokk laa ma ñoo jàppale ma doomu Fass laa Fass laa juróo Fass laa yoroo la am ma ñëpp jàppale merci kontaan naa ci yow